ñoo ngi sant yàlla ci élection yi ni muy ni muy déroulé bon gis nañu nit ñi ñoo ñëw bien vrai que xaw na xaw na sooxe nii rek mais dañu xam ni peut-être ku si nekk sa euh, interprétation la xëy na ñii dañu ne naa bàyyi ba après midi bi mais li si gën a wóor daal moo ñu woon teela a ñëw voté après ku nekk dem defi say préoccupation sinon bu ñëpp xaar ba ngoon aussi day compliqué te lii nañu am comme rendez-vous le vote c'est un rendez-vous que tout un doit ñëw jàpp ci réew mi jàpp ci euh, comment dirais-je def sa sa droit civique parce que loolu la askan bi amat benn rendez-vous boobu la am dans tous les cinq ans moo gën rafet daal que ñuy toog parce que boo xoolee ci école yi gis ay maire ay mag mu jëm comme man sama cas sama yaay bi nga koy yóbbu école HLM 4 mu voté ci avec difficulté chaque instant day toog ci 16 li ma ci gën a jaaxal mooy maa ngi romb terrain HLM yi booy yaa ngi football te c'est leur avenir qui est en jeu lu ñuy wax non réew mi defuñu fi dara ñoom ñoo waroon taxaw jàpp ci réew ci bi parce que liggéey bi dafa am fu muy jaare ñun ñëpp mënuñu si on prend 160 députés nous va représenter donc askan bi dañ ci am pas de responsabilité na xalé yi nga xamné sen seen avenir moo en jeu parce que foofu dañ ko wara joyto donc nak di appeler à tout un chacun dans le respect et dans la dans l'art de faire son choix et puis de le faire paisiblement et que le maire gagne te yàlla na yàlla def aussi Pastef euh, am ndam li pour mëna a yëgali mbëbëtam ci ci réew li may wax rek mooy waruñu leen jox euh, issue de sortie bu ko defee ñeneen ñi noo joxuñu leen majorité à l'Assemblée moo tax mënuñu liggéey léegi daal li may ñaan ñëpp mooy li may wax rek ni ngi leen tiñal nit ki boo ko tiñalee jox ko lépp dans ce cas tu seras là et lui dire que bon maa ngi lay xaar lan nga fi def te bu soobee yàlla incha allah bu ñu leen joxee majorité à l'Assemblée ils vont ils vont faire dérouler le programme te incha allah am nañ si yaakaar bu baax a baax comme nous avons eu élection anticipée la législative yi première impression que j'ai déjà que effectif bi ma fi euh, euh, comparé aux autres élections passées peut-être aussi que le dimanche euh, peut-être que nous a mais on espère bien que nous ñi en fait am récupérer ces cartes carte voter massivement avant avant ñu le bureau quand même euh, parfaitement bien, oui. On a confiance, euh, je dirais même à 200% si vous voulez. am confiance mashallah, parce que liggéey nañu te gis nañ bi ñu le ci terrain bi tamit retour yi ñu am ci population bi donc on a, on espère avoir la victoire inshallah. Je ah que may may may euh, population sénégalaise bi rek muy xale muy mag muy góor muy que nous, dañu toll ci foo xam ci àdduna jël sa responsabilité parce que tamit euh, bo yewo ci deuk yaakaar naa bu yalla defé nga am euh, atteindre sa majorité am sa ki nga majeur am sa carte d'identité euh, tollu ci voter am cadeau war wax yaakaar waro ne xaar sax ñu lay soññ pour que nga juk donc damay damay interpeller la responsabilité de tout le monde de tout un chacun pour que ñu guen massivement ñeu def sen sen acte citoyen donc euh, voter et euh, faire le bon choix qui est Samusakadu, coalition Samusakadu Kadou, intercoalition bi incha allah di ñaan non particulier moi moi en particulier donc petit euh, bureau de la la voter def ma fa benn remarque le lu tu vois le manquement quand même parce que tous les bulletins sont sont là boo dugg c'est joxe sa carte d'identité normale bon pour le moment man remonté une ben information une euh, euh, c'est dans le cadre d'un incident ou quelque chose comme ça bon déroulement élection yi dans sa généralité en fait en fait euh, que le débat n'est qu'un débat programmatique et à la place vraiment des responsables politiques ils sont versés dans la violence am ñu vraiment dañu nekk ci yeneen débat donc euh, lolu moy constat général bi benen bi nak moy euh, en fait au niveau des HLM tay rush buñ doon xaar amul mais lolu c'est pas en fait euh, le mal propre des HLM de d'habitude les élections nous mu tuddati législatives modon modon moo faible ci taux de participation donc peut-être lolu et également comme les gens aussi quelque part de nous situer euh, en fait c'est euh, une appréhension politique Nous pas juger tant que 18 heures tout. donc euh, peut-être des choses pour voilà population c'est un acte civique c'est un devoir citoyen donc tay faut en fait voter parce que assemblée de am solo dafa am solo qui une proposition de loi dafa am solo le contrôle euh, euh, du pouvoir exécutif donc tey euh, kenn warul nelaw ñepp wara ñeu voter parce que man je dis que élection législative mo une am élection présidentielle parce que bi da lay permettre yow en tant que citoyen de contrôler l'action du gouvernement xam yow li nga bëgg ñu défal lo donc lolu tay su fekkee dafa un faible taux de participation vraiment damay damay xawa euh, am pincement de cœur ci euh, les citoyens sénégalais mais HLM bon wax c'est-à-dire euh, son par rapport à sa taille électorale à Dakar quelque part am am mais manam comme lu ñuy wax rek di wax mu donc point stratégique et également qui gagne HLM gagne euh, une commune une commune bu nga vraiment politiquement. Moi, faible taux bi de par rapport la présidentielle a pas ko conseil. et c'est dans tout le Sénégal hein c'est pas ici parce que je suis en train de regarder les réseaux sociaux donc rien de nit ñi dañu désintéressé ci politique parce que liñ ciy yaakaar ak liñ ciy gis xëy dafa amul ak liñ leen di wax mais y a que les militants purs ñoo xamné rek am nañu ngëm-ngëm ñooñu rek ñooy ñëw wote si te ñi amul ngëm-ngëm wala ñi amul conviction ñi ngi tok seen kër. mais nag ñu ngi ñaan yàlla rek ngoon que le meilleur gagne waaw. Ah. Euh, ñu ngi leen di nuyu waa HLM Vision seen équipe bi yëpp di wax euh, ñi ngi soog a ñëw def loo xam ne tam moom mooy suñu devoir comme tout sénégalais tey nag euh, ñi ngi wax léegi na ñëpp génn ñëw vote ci jàmm di ñaan tam au soir suñuy député tam yàlla may ñu ndam. ci barke sayyidina Mohamed te may ci wat rek di len wax tam buñu faté fàttee lu may wax à chaque fois di len wax HLM luñu am mo ëpp lépp lii benn tàkkusaan rek la ku nekk nak mën na am ko àndal mais tam du tax ñun ñu rayante wala ñu wax ay wax yu ñaaw wala dara di ñaan lu may wax à chaque fois yalla na yàlla tàbbi xol yi comme ni sun mam Abdou Aziz ci doon waxé yàlla bolé ñun ñëpp di ñaanal nak coalition bu ma muy sam sa cadeau yàlla may ñu ndam

ci jàmm ak salaam te ñun tam ñu ngi ciy def lu ñu man parce que ay doomu HLM lañ fii la sun base nekk ak lépp ñu ngi leen di woo ñu ngi génn te am nañ yaakaar après midi bi ñoom ñëpp dinañ ñëw voter en masse incha allah jërë ngeen jëf. waaw alhamdulilah ba yàlla mayee ñu ñu mën a ñëw def suñu devoir de citoyen euh, mu nekk loo xam ne nag euh, dañuy lancer waale profité lancer appel à tous les sénégalais ak citoyens yi nekk fii particulièrement HLM bi ñu nekk nii ñu ñëw def seen devoir de citoyen parce que sa baat ñu sàkku rek nit yi ñëw peut-être nag dañuy xaar après midi bi pour mën a def benn rush pour ñëw voter si man je pense que taux bi faible na trop soo duggee si bureau de vote yi da ngay gis ne que amul benn benn rang amul benn kii wante dañ jàpp ne d'ici ay 16 heures sénégalais dinañ ñëw voter si. waa parce que li nga wax ni am na solo trop quoi cohabitation boobu day nekk day ñoŋal bu démocratie parce que si démocratie contradiction boobu mooy indi dëgg

maa ngi rafetlu vraiment bés bi ndaxte nu euh, ñuy wax bésu woote moom bésu feet la ndaxte euh, sénégalais yi da leen di jox occasion ñu ñëw wane ne euh, vraiment baatu askan bi ku ko soxla da nga koy ñëw daggaan si te ñoom ñoo yore baat bi kon bésu woote bi rafetlu naa ko parce que ça se passe très bien te nit ñi vraiment jóg nañ dam voté ci nu mu gën a rafetee amul xuloo amul xiiroo amul ngaayoo surtout fii ci HLM wax dëgg yàlla euh, bureau ba ma voté HLM 4CD gis naa ne jàmm am na fa dispositif bi yëpp c'est en place bulletin yaa ngi fa ñun ñaa ngi voté di dem tranquillement euh, li nga xamante ne rek am seetlu naa ko tuuti mooy ñi génn woote bariwul ndax ndaxte euh, fa ma jógee nii presque dafu fa sax daanaka une minute dama ñëw rek dugg amul rang amul darab kon nit ñi euh, nañu gën a bàyyi xel ne euh, ñoom ñoo yore baatu askan bi nañu jóg voté ji ndax euh, loolu mooy tax tamit ñu mën a xam sénégalais lan lañ xalaat ak fan lañ féete cohabitation mën na baax ko mën na bañ a baax maintenant dama yaakaar ne député yi bu ñu demee assemblée nekk luñ fa seen parti politique nekk luñ fa tamit seen coalition wala keneen sénégalais lañ fa nekkal ndax kuy tànn liste tamit lo euh, ka nga xamantene wolu woko pour mu am xam-xam bi wala am jaat-jaat wala mu mën am yene bi pour ba mëna a dem wax ni soxal sénégalais moy politique publique yi ñukoy doxal dans l'intérêt des sénégalais moy tamit projet de loi yi ñukoy def dans l'intérêt des sénégalais et que euh, buñ fa tégué projet de loi aussi bu dee intérêt sénégalais nek na ci nit ki mu and ak nguur mo xam wala mo ñak and ak nguur euh, daf ci wara and même bu fekké né aussi projet de loi yi nekkul ci intérêt sénégalais nit ki mu ànd ak nguur gi wala mu ñàkk ànd ak nguur gi waru si mën a d'accord te loolu mooy njëriñu euh, pouvoir législatif ak assemblée bi loolu leen fa bàyyi tamit ñu ko leen koy fàttalikul di leen gën a ñaax que quel que soit appartenance politique député yi ñuy fal nañ ci bàyyi xel bu baax ne askan bi moo tax ñu fal leen. jërëjëf man preuve bi moo gën a mature sax politiciens yi parce que ku yaakaar na nga leen di nax da ngay tromper sa bopp gars yi dañu mën voter il ils bien. Vu l'histoire du Sénégal, vous votez, mais ce n'est pas possible. C'est tout le temps comme ça que les choses se passent. Donc, nous avons fait le processus démocratique. Nous avons fait problème. Nous avons fait Nous avons fait problème, nous avons ni fin avons fait bureau nous avons fait que tout le monde adhère pour que Sénégal avance. Nous avons fait Nous avons fait je pense qu'il doit arrêter tout ça continuer parce que sinon on va on va retourner en arrière on parle pétrole gaz mais le bu ñu sàgganee duñ ci gis sax couleur bi suñu PDS moom mënul nek parti transhumant lolu mom defe naa ne ñun gis nga ba doon présidentiel dañu voté won pour pour pour le candidat jomay donc élection yi ni ñu dem ci coalition mais PDS ku ci nek té sérieux di nga nangu ni parti bu divisé la am ñoo xamni ne dañoo retiré seen parti bu ñu am ñoo xam dañu dem ci coalition tak wol am na dem ci coalition soppi donc moy wone ni euh, c'est interne et que tout le monde def choix bi nga xamni mo dal sa xel quoi mais pour ma part gis lu trop sax ma gëna actif parce que ku mën a jël sama responsabilité la ba xam fa lañ jëm nan la ñuy def ñi di wax cohabitation pour man dañuy lire constitution bi en diagonale xam nga diagonale mooy maanaam ni nga ko war a lire affaire bi toppul yoon Sénégal ku sérieux nekk juriste di nga xam ni régime présidentiel la mooy maanaam fii bu ñu xasee ba voté président bi moo yore doole gi yëpp doole gi yëpp moo ko yore mooy nommé mooy dégommé moo yore politique étrangère mooy rek politique de la nation et cetera et cetera mooy nommé aux emplois civils et militaires donc boo nekkee premier ministre tamit boo la àndulee tamit mën na la dégommer ah, mën na créer crise institutionnelle boo mais copier coller bu baaxul maanaam yi ñuy gis feneen boo gisee France cohabitation mën fa am bokkuñu mentalité bokkuñu histoire politique bokkuñu façon bi ñu def man gëwuma yoo xam laa gëm liggéey te foofu lañ toll j'espère que lundi suba incha allah dinañ commencé teg dëkk bi ci yoon xale yi am liggéey Social, bi ñu taxaw ci pour que nous gi wàññeeku ñu limiter la question de l'immigration clandestine parce que loolu tamit beneen problème la fi réew mi toll xala xale yi dem ci géej gi yëpp qu'est-ce qu'on fait pour ça boo seetloo États-Unis président bi ñu fa fal bees nee na ay avion lay teg pour déporter gars yi qu'est-ce que le Sénégal prépare face à ça qu'est-ce que le Sénégal prépare par rapport ak enjeux yi nekk autour de nous nee na leen dëkk yi am pétrole ak gaz yëpp xeex ak futi xuloo lay mujjee te ñu fa indi xeex bi étranger la ñuy nekk qu'est-ce que le Sénégal va faire quel rôle l'Assemblée nationale va pouvoir jouer ba nous ñu leeral ko ci les ressources naturelles, ba mu y jaar ci yoon que Sénégalais bu nekk war cee mën a gis sa bopp. ma macha allah ñu ngi rafetlu vraiment élection ça se passe très bien mais au fait euh, pour mon taux faible faible non parce que peut-être école yi vide mais peut-être sécurité bi au fait nous assurer liggéey bi di est def bu parce que pour voter rek dañ lay mais parce que nous mu presque on est à 50% donc ça se passe très bien. Euh, coalition non je ne pense pas que dino parce que nous communiquons, leader mais le président. Ah, Fatoumata Ayosonko, coordonnatrice cellule HLM 4D mandataire macha allah ñu ngi le vraiment élection yi ça se passe très bien mais au fait euh, pour mon taux bi faible non, parce que peut-être école yi vide mais peut-être sécurité bi au fait nous assurer assuré bi di def bu baax parce que pour voter rek dañ lay parce que nous sommes presque on est à 50%, donc nous ngi sant yàlla bu ça se bien. Euh, Nous venons de remplir nos euh, notre devoir citoyen, là tout de suite même, à 15h. Euh, on, a noté aussi une participation à hauteur de 50%, mais il reste 3 heures de temps, dessus 18 heures. On appelle les citoyens des HLM à venir voter massivement, remplir leurs devoirs. Pas dire en faible taux, parce qu'on est à 50% il reste trois heures de temps. Et on sait que d'habitude, les Sénégalais sont un peu lents par rapport à, à venir voter et tout. Mais on attend que d'ici 18 heures, on peut atteindre les 70 à 80 On l'espère. Très optimiste. Très optimiste même. vote voter boo xoolee da jàpp ni nit yi ñëwuñu sax waaye dañ fay fekkantewul moo tax waaye daal nañ jàpp ni ñi ngi ñëw di voté ku xool urne bi xool enveloppe yi si nekk di nga gis ni nit yi ñëw nañu te voté nañu waaw si ñi ñëw nag di voté li ñañ ca gën a jàpp daal ñi si gën a fës mooy ñi nga xam ne mooy ñoo nekk ndaw yi wala boog ñu waxee ko ci diggu dóom yi diggante ñi am ñaar fukki at ba romb euh, ñeent fukki at ñoom ñëw nañ bu baax a baax moom mag ñi nak ñew nañu leg leg dañuy gëna téla ñew amna ci ñen na ñoo xam ne ñu féete woon ci kër yi doon taal añax yoy xeyna ci kanam bala ñi wacc di ngeen gis ñom ci lañuy faral di ñëw ya, gis nañ fi tam ñoo xam dañ leen wamat ñii ci mbirum tank ñi ci mbirum bëtt waye dal pour wane ni ñepp ñew nañu ñi ngi ñew nit ñaa ngi ñëw di def ci seen wareefu citoyen waaw moom daal li gën a wóor daal mooy ya, suñu sëlmale tàkkusaan ba juróom benn waxtu ci ngoon si la ñu jàpp ni dinañ tëj bureau de vote comme ni ko arrêté bi waxee ni ko kilifa gi waxee ba ba ñuy dégg leneen nag waaw jërëjëf